nuy naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci yéenekaay yi ubbil yéenekaay bi nga gis tiis bi nga xam ne ak naqar te mu am jëm ci ñi nga xam ne ñoo séq lamb ëllu lamb ñàkk nañ ku diis ci ñoom waaw waaw kookee soxna Abdou Aziz Ndiaye lay wuyu maam Binta di madame Ndiaye wuy ji boroomam niki samedi bii nu génn moom mi nga xam ne moo di boroom këram di Abdou Aziz Ndiaye yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne mooy soxnaam ma nga yëgle ak di xam la ni ñoom bañ ma reeg léegi toll na lu mat ci 21 ans waaye soxnaam si la mësta fay mësul génn benn yoon ca kër ga moom sax ma ngi koy xamle ak di yëgle ni soxnaam si da koo jàppe woon ni papa ubbil yéenekaay bi di Dakar Actu da nga ca gis kaddu ya nga xam ni Malick Gakou yëkkati na ko Thiès Info feelu ko mu ca yëgle ak di ca xamle ni moom daa ñëw en tant que doomi ki nga xam ne mooy Baye Alain Ndiaye waaw waaw loolu moo di ay kàddoom ba tey ki nga xam ni moo di Balla Gaye 2 moom itam yëkkati na ay kaddu jagleel ko ndem si yàlla lépp loo xam ni lu ma daan jëfandikoo la lu jëm ci wàllum préparation samay combat moom mii di ndem yàlla si moo ma ko daan préparé ni moom la ma jàppe woon mi ngi ma jàppe woon ni doom ju ma sukk jur tey baay booy di yëkkati ay kàddu Dakar Actu moom baa booy ma nga yëgle ak di xam le ni mboole seen jigéen ñi dañoo war a jël exemple ci moom ba tey ubbil ubbil yéenekaay bi di sans limite ma nga yëgle xam le kàddu ya nga xam ni rakki moom mii di Aziz Ndiaye yëkkati na ko waaw waaw badu lay wuyoo rakki Abdou Aziz Ndiaye ma nga yëgle ak di xam le ni moom moom mujjee wax ak moom ma nga xam le itam moom mii di ndem si yàlla si maam Binta yaay la woon ci moom buñ ca jógee dañuy daw seeti leeral leeral di yëgle ak ngi xam le ni moo la seen les jeunes maaxam laay laay la laa Serigne si ndaw si eh waaye ndaw Samba ñoom Serigne si ndaw si jóg nañ nag laa la seen réseau boobee ña ngi ko tuddee réseau des jeunes marab li ko waral nag te sabab ko du leen lu dul jàppalante dimbalante ci wàllum social ñoom nag jëf joojee nga ñu ngi koy jëf ñu ngi ko gisee ci ki nga xam ni mooy xalif général des mourides ginnaaw taxaw gi xam ni mi koy taxaw askan tegle ak lijjanti fexe ba mbir mi yépp jaar yoon fexe ba ñépp ñoo xamante ni dëngoo nañu mu fexe ñu daal di juboo Iran Ndao bokk na ci moo tax jeune taxaw dox ci social ginnaaw moom jëf ju am solo ji nga xam ni mi ngi ko ciy jëf li ci gën a fës te ni man ko cee wax mooy jëf ji nga xam ni jëfaloon na ko sëriñ ba nekk ca njaañ ñoom jeune marabu yi nag jàpp nañ ni fépp foo xamante ni rek kërug diine la kërug kilifa diine la dinañ fa dem ànd ak ñoom liggéey bi maa la ko wax de di tàllal ñëpp seen loxo laa la wax bàyyi wuñ kenn bañam ba tey ubbil yéenekaay bii di leeral leeral la ngay fësal ak di xamle ni képp koo xamante ni jóg nga di trafiquer faux médicament maanaam di jaay garab yu baaxul wala

des pharmaciens privés yàgg nañ koo bëgg a dox yàgg nañ koo bëgg a wax waaye ni ngeen ko doxee waxee ko ni neex nañu lool bañ ba tey bul jóg ca leeral taxawal waa ji nga xam ne daa bokk ci ñoo lànk ñoo bañ kookee directeur Babacar Diop lay wuyoo directeur Babacar Diop mi nga xam ne jàppoon nañu ko ci mars bi mu doon amal moom ak Guy Marius Sagna te ñu mujj ko libéré te ba fa Guy Marius Sagna ba tey moom docteur Babacar Diop yëkkati nay kàddu e waaye ndaw Samba kàddam yooyee ka nga ne moom la ko jagleel déglu ma wax la ko Idrissa Seck lay wuyoo Idrissa Seck mu mu gis ne dafa noppi laa directeur Babacar Diop jóg wax ci tax mu àddu ci wax ji mooy toog gi Idrissa Seck toog noppi laa la jamono ji nga xamante ni askan wi yëpp ñu ngi jóg di manifester wu di wax ci wàllum yokk gi nga xam ni yokk nañ ko courant bi moom docteur Babacar Diop la nga xam ni doon na ko xaal ci ki nga xam ne mooy Idrissa Seck peesu na lii ma nga naan sax Idrissa Seck mi nga xam ni lu tolloon ci un million de na ko sax wërta fàtte loolee wërta fàtte askan bi nga xam ni ñoo ko bëggoon a jël teg ko ci bopp réew wërta fàtte ni nekkoon na deuxième ci li nga xam ni mooy dernière présidentielle yi élection ya moom nag li nga xam ni moom la war a doon du leen lu dul leaderu opposition di leen jàppale di taxaw ci seeni soxla seeni bëgg-bëgg ba saa suñu ko soxla mu dikk taxaw teew waaye du noppi gii nga xamante ni moom noppi na ko eh waaye ndaw Samba bu noppiwul nu muy def nga ni mala ko mbii mi ba tey fa nga xam ne fa lan jëm mooy seetiwaat leeral mu indil ñu Moustapha Diakhaté la ma wax Moustapha Diakhaté la mu wax wax ju rëy la moom ma ngay xamal ni président Macky Sall moom mooy ki nga xam ne moom la ñu war a njëkk a traduire ci commission de discipline bu fan APR eh waaye Samba yaa ko sañ wax de mu indi di fësal la nga xam ne moo xewoon samedi ba ñooñu ñoo lànk ñoo bañ jógoon di sensibiliser ñoom nag ña nga xam ne ñoom lañ doon sensibiliser mooy askan bi di waxtaan ak ñoom laa la waaye seen jóg boobee mujj na métti ci ñoom may ko campagne de sensibilisation boobe mujj na diis lool lool lool ci ñoom ñi nga xam ne ñooy waa ñoo lank ñoo bañ ma ca am te xew ca mooy jàpp gi nga xam ne jàppaat nañ ko ci ñoom lu toll ci quinze personnes lañ téye ci ñoom quinze ubbil yéenekaay bi di gis tur yëpp ubbil Cheikhou Camara ca la bokk Aliou Sène ca la bokk Pape Gadiaga ma nga ca Fallou Diagne ma nga ca biir laa la wax Fou Malade Malal taal ma nga ca biir Adja Samir sek jàpp nan ko Almami Tall tamit ma nga ca biir Mamadou Ndoye jàpp nan ko laa la wax Omar Touré ca la bokk Babacar Yabare ca la bokk APE e Diallo ca la bokk jàpp nan ko Seyni Diaby tee nan ko laa la wax Mori Ba Sissoko moom itam takkal nan koy la Abdourahmane Samake jàpp nan ko Gabriel ak ki nga xam ni mooy Pape Abdoulaye Touré ñoom ñooñee ñu jàpp samedi gii nu génn ñoom nag lu sabab seen jàpp googee mooy campagne de sensibilisation bi ñu doon def waaw waaw waaxu wuti population bi laa la tax ñun leen nappoos ba tey la nga xam ne moom la ñuy xeex mooy courant bi ñu yokk waaye tem gi Marie Sagna nga xam ne jàpp nañ ko ba tey ñooñu ñoo ñànk ñoo bañ am na ci koo xamante ni ma nga foofee waaw waaw ma nga ca Londres laa la wax ginnaaw bu président Macky Sall di dajeeg ñi nga xam ne ñooy militant yi foofee ya nga xam ne ña nga nekk ca Londres am na ca koo xamante ni nee naa la kookee ca ñoo lànk ñoo bañ la yëkkati na loxoom la mu wax mooy waawaaw jigéen joojee la nga xam ne moom la wax mooy libéré Guy Marius Sagna ewaay eh ndaw Samba daa di interrompre li nga xam ne mooy waxtaan walaa la wax daa di wax soxlaa ba tey ubbil yéenekaay bi di leeral Woré Sarr ma nga yëglaak di xam ne ni foofee ca Mbuur Karim Meïssa Wade dina bokk ci ñi nga xam ne ñooy candidat yi jëm ca élection présidentielle 2024 Karim Wade dina ci bokk te gisul lenn lu ko cay tere bokk moom sax ma nga yëkkati ay kàddu ni Karim Wade kenn Wade mu bokk ci ñi nga xam ni ñooy xeex laa la wax masu koo gisi te muy tontonte ak di a ko xasante lu jëm ci wàllum politique eeway eh no samba di kàddu yu war a saar yu mu yëkkati jagleel ko Karim Wade eeway eh cee kàddoo ma nga naan c'est un jeune digne et responsable tax nag il sera bientôt laa ñu ngi koy xaar a jàmm na ñëw <laughs> di yomb de ba tey ubbil yéenekaay bii di sans limite da nga fa gis kàddu yi nga xam ni moom la Ahmed Aïdara yëkkati eeway eh ndaw samba lu mu wax Ahmed Aïdara kàddoom yépp mi ngi ko daal di jël jëmale ko ci troisième mandat wu président Macky Sall ngi koy avertir nag di ko yëkkati ay kàddu di ko jokkar bi di ko teg ci moom te moom moom yi ma ngay fësal ay kàddoom di yëkkati ak di xamle ni ba tey jii ñuy wax ak yéen bëgg naa bokk ci candidat yi nga xam ne ñoo jëm ci élection locale yi eh waaye daf sàmba ana waa géejawaay ba tey la nga xam ne moom la nit ñi sikki sàkka ñenn ñi di jiixi ak a jaaxa mooy daam boobee di wóoju turu Kumba Kan te nu jàppoon ko laa la wax kidnappé woon ko am na ci ñu baree bari ñoo xamante ni ah nee nañ mbir mi jeu la laa wax film xamante ni itam nee na bu doon ni seen doom la wala muy seen rakk mbaa seen jabar du ngeen ko wax laa la wax ki dañ koo kidnappé woon lu ci am des daal moom Coumba Kane mii yëkkati na ay kaddu di xamle ni A ba ca Touba lépp la wax laa la wax leer na biñ ko kidnappé am na benn jeune femme boo xamante ni itam ma nga fa woon ak meneen moroomam moo xam ni jàppoon nañ ko itam ba tey ubbil yéenekaay bi di sans limite ma ngay fësal ak di xamle ni diggante Sadio Mané ak Salah Mohamed Salah ci jëmu boppam moo yëkkati ay kaddu di yëgle ak di xamle ni digganteem ak Sadio Mané rivalité amu ci moom sax ma ngay kontaan ci Sadio Mané di yëgle ak di xamle ni c'est un ambassadeur laa la la wax ba mu day waaw waaw noonu la de ba tax na kon gaynde gii ak pharaon bii ñoom ñaar ànd nañ ci jàmm ak salaam moo gën a wóor ba tey ubbil yéenekaay bi di leeral ma ngi lay yëgal équipe bi nga xam ni mooy équipe bu Sadio Mané di Liverpool Liverpool daaneel na laa la wax door na duma na mboole seen équipe yi nga xam ni ñoo nekk ci championnat bi ci saison bii laa la loolu nag moom yombul liggéey koy maye am ku mel ni Sadio Mané koy maye ba tey yéenekaay bi di sans limite bu fecckat bii di Ndeye Gueye waree dem foofee nga xam ne mooy vaar ngir xoom ndax am na quarante am déet ndax dina mën a am doomam déet <laughs> day jabari booy jinne ji jooju la jamono day ka nga xamante ni mooy wuyoo ci turu ràngu moom mi nga xamante ni daanaka askanu sunu gaal gi yépp doon nañ wax ci moom ubbil yéene kaay bi di Thiès Info da ah waaw chroniqueuru na ko ko laa la wax yow da nga ko doon xamal ni ràngu di askanu Sénégal ak diine ji mënoo koo yàq laa la wax waaw avertir na ko de moom ràngu moomee bu chanteur bii di ci turu Sacha di wane boppam foofee ca Thiès Info ca la yëkkati yëkkatee ay kàddu moom ràngu daal di def li nga xam ni mooy baalu àq eh, waaye ndaw samba nga ni rangu men waaw waaw ay kaddu di baalu ak moom nag ma ngay baalu ak mboole seen Sénégal yëpp di baalu ak yaayam ak ki nga xam ni mooy Jamra waaye rangu moom eh yemul ca baalu ga la nga xam ni moom la def tam nee na dina jóg jàppale ñi nga xam ne ñu ngi leen di kidnappé xale yi ne ñu ngi leen di kidnappé laa la wax yow kidnapp boobee nga xam ne ñu ngi koy kidnappé xale yi waaw waaw gannaaw ba na kidnappé na beneen xale buñ kidnappé kookee nag Moustapha Ndaw lay wuyoo moom am na 14 ans Moustapha Ndaw moomee ma nga dëkk foofee ne mooy ca Kaffrine boobeeg léegi daanaka war naa mat une semaine ah loolu day yéeme la li nga xam ne moom lañ leen di tàggoo mooy la nga xam ne moo xew xew foofee nga xam ne mooy ca Pikine tali bu bees maçon bii di wóyo ci turu Issa Thiaw am na vingt ans moom nag moo daal di daanu nag li nga xam ne moo di kaw immeuble laa la wax immeuble waaw waaw ubbil yéenekaay bi di Seneweb da nga gis lépp ni mu demee waaye daal moom fa la daanoo laa la wax xewi ko ca kaw rek ni bipp ci suuf ca i inaa raax way ne raajo xool maçon yi di leen xool seen safo bu a a baax bu safo yi dëgëree ngeen Seen da Damel di tàggoo niki tey jii di leen jox dig daje ba subaa jàmm salaam yàlla ko yàlla def ci man def ko ci yow def ko ñun def ko ci yéen def ko ci askanu sunu gaal gi yépp jaa jëf